pour ñëpp mën a comprendre ci yar nag laa koy ak ci tegg na man nee naa tubaab fakal dañ maa yar kii nee na dafay laaj waa ji nga xam ne dafa fekk soxnaay jàmbur ki nga xam ne dafa am borom kër mu liggéey ko maanaam ba ndaw si tàggook sagoom mu sekk ak moom yenn yi maanaam të sëy eh, ci kàddu gu rafet ñu sekk sëy ñoom ñaar léegi ñuy laaj ndax ndaw si nga xam ne moom dañ koo dañ koo liggéey wala bi muy def loolu ak ak waa ji àndut ak sagoom ban atte la lislaam teg dañuy dañ koy atte comme Euh, ku ku ku ku ku ànduloon ak sagom wala dañ koy atte comme ku njaalo. c'est que dama xamul ndax Balthazar la ñuy wax wala question bi la ñuy Balthazar la si boppam. ah mais format question la rek genre nga xaabaabal rek. d'accord yaa noo koy. waaw bam naa ci d'accord yow ndaanaan <laughs> parce que il paraît que ñëpp dañuy wax naan jigéen ñi mu ko def parce que bu dee wàllum xaalis rek ñoom ay doom ministre ñi jabaru genre seen borom kër yi am nañ xaalis ñi naan xaalis du xaalis ñi naan dañ leen liggéey mhm. moo tax ñu andi ko si cadre très man li ma jaaxal mooy man 400 femmes laa dégg. 400 vidéos 400 femmes xaw ma 400 vidéos. 400 mm-hmm. vidéos mais daal loo ci mën a dégg Bambi Assane. lii li warul jeex mën ci xool. wala ah. ah? Bambi. soo waaye nga rek dëgg-dëgg te bu ma waxee dama la tudd ko ah. <laughs> mu mel ni waaw gis naa ko boo bëggee dëgg-dëgg rek Baltazar tasaare na réew mi. tasaare na ko de. Baltazar. man nag moo Modou gis naa façon jëmm ju ne waaye Baltazar moom Baltazar moom pour vous dire la mu am rek tasaare na ko. ne yàlla may na ko Assane bal bal Baltazar moom moom tur sax moom dafa tekki boppam. waaw franchement bi dafa tekki boppam Baltazar mais Modou. Mm. coowu Baltasar tasaaroo na ci semaine bi wax yi bari mhm. waaye Moodu mbaa yëg nga ni man jaaxaluma loo jaaxal non yëngaluma Moodu ñun dañoo am ay Baltasar fii ci senegal waaw fii ci Sénégal Dakar am na Baltasar Thiès am na Baltasar Kaolack am na Baltasar mm. dañoo bari la ay Baltasar waxtaan dëgg balaa ñuy liggéente quatre cent vidéo Baltasar ma ca Guinée nañu la jënd suñu baltasaar yi ci Dakar ak Thiès ak Kaolack ak yeneen dëkk yi. moo tax ñu poser la question yi de manière générale. mais moo tax mu am sens. Mhm. moo tax sa question bi am sens. xam nga tey wane nañu benn xale bu jigéen. ci wanin bu ñaaw. ñu ni kooku dafa am jëkkër. xam nga xam nga affaire bi daf li ñu war a poser question ndax ñun attaque bi ñu def Baltazar ci semaine bi war na ci moom rek lañu war a yam wala ndax ñun ñoo war a sanguwaat. baasan ñun ñoo war a sanguwaat muudu. ah ñun mais dañoo bëri ay Baltasar ñun ñoo war a sanguwaat bambi. dëgg kon bu ñu laay yëfi de. Mhm. ñaata jigéen ñoo am jëkkër ba pare di njaaloo. Mhm. ñaata jigéen ñoo am jëkkër ba pare di njaaloo ci réew mi ndax mën nga leen a kon deew mhm. ah, bari na góor ñoo xam ni bambi bi ñuy dee moodu stress la ñu yóbbaale. bari góor ñoo xam ne tey li gën a metti yëg nañu ni seen jabar am na góor gu muy génnal te mënuñu ca dara bàgg te gis nga gis nga am na loo xam ne bu la dalul bu la dalul muudu am loo xam ne bu la dalul da munoo merci am na góor ñoo xam ne stress la ñuy dundee guddi yu ñu toll am na góor ñoo xam ne jàpp nañu seen i soxna ci ay ojo ñu ngi ñu téye benn ko seen téléphone te ñu ngi xaar bis jot déedéet dañuy xaar bis jot. bés bu rafet lañuy xaar. parce que amaguñu preuve à l'appui bu leer. mais am nañu góor ñoo xam ni jàpp nañu seen i soxna ci communication. am na góor ñoo xam ni seen i soxna tàggu nañu leen ni maa ngi jëm Dakar jóge Thiès fekk Mbuur la ñu teer yee. moo tax man la y a beaucoup de Balthazar qui traînent dans dans ce pays. Mhm. action bi mu def la war a laaj ndax ñun ñun am na fi ñun wala déet. ñaar nag juñ da cee am muun benn bi moom jàppal ni du jullit ah. xam nga du jullit ah. defe naa du jullit defe naa bokk defe naa du jullit moodu waaw waaw comme du jullit ñoom seen atte ci seen diine mais ñun ni ñu jël affaire bi jàpp ni ñun ñoo ko moom parce que li Balthazar def dafa bari ci réew mi mm-hmm. chrétien sax nanguwul loolu faut qu'on se dise la vérité chrétien sax nanguwul loolu waaw faut qu'on se dise dama li mu def li mu def yow di di daa bari ci réew mii di Sénégal xam lu gën a metti baasal fu mu am Sénégal dafa bari. ah man mosuma ko gis. waaw non xam nga attention xam nga. xam nga nag boo am na fa nga war a wax ni. dama lay wax waay waay Assane Assane Assane bañ juddoo ba xam nga tamit yaa ngi naan ku ëmb ku am jëkkër te ñun amuñu ci lu ñu leer ñun xamuñu ko ko xam waaw dañuy toog rek di wax en tout cas gis nañ ay vidéo ay benn waay di sëy ak ay jigéen waaw loolu rek moom laa la waaye mi ngi sëy ak ay jigéen am nañ jëkkër am jigéen gis nga ne dañu fay fayu leen ay soxnaam nañ duñ ay soxnaam wuuru waaw dañuy sëy ak ay jigéen rek solo hmm. mooy du moom du moom man man personnellement man Souleymane man ngay àtte bi action bi muy def action bi muy def laay àtte acte yi hmm. waaw amul Sénégal wax loolu dafa am yow yaa ngi teg bët non Assane yow Assane yow foo ko xamee. Assane Assane Assane. déglu Sénégal déglu. Sénégal am yàlla mu ñu bind xam ñu. ah ma ne Bambi. Mm. yàlla mi ñu bind xam ñu moom lislaam yi ma lislaam sant naa ko def. waaw dëgg la rey rek déglu. Ah. waaw bis ma ah, teg yàlla ci kër gi sëy. yàlla mi ñu bindu xam ñu moodu. Mhm. xam na ni ñun dañ koy def. yàlla indi àtte teg. pourquoi yàlla indi àtte. dafa am moo tax parce que am na li tax yàlla indi ñu àttee góor gu am jabar dem di njaaloo ak jigéen ju am jëkkër dem di njaaloo pourquoi yàlla indi ñu àtte dinañ leen rek ni Sénégal ah, la indi ah, ah, ko Sénégal la quand même indi ko Sénégal mais dig na góor ban bi am jabar ba pare dem di njaaloo ji boobu góor digul mm. jigéen moo tax yàlla mu ne su fekkente ni yow célibataire nga mm-hmm. azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda asan asan mesere bu dee célibataire la asan mesere dem njaaloo sariya ne nañ ko jàpp dóor ko téeméeri yar bu fekkente ni jigéen la Aïda Ndiaye la dafa njaaloo sariya ne nañ ko jàpp ne téeméer yaa am di jël bambi mi bu dee Aïda Ndiaye jabar jàmbur la ah man man ma jëkkër jàmbur man ma jëkkër jàmbur la kay jël bambi jëkkër jàmbur la man jaay la Aïda Ndiaye sama doom Aïda Ndiaye sama doom jàmbur la ñoom ñaar ñëpp leen jël man jëkkër jàmbur la yow mun naa laa jël wax la dara duma ci fekk ndax góor lañu nañ ko gérer mais kii jigéen yaa ngi ma saa ma doon bandi yenn saa ma dugal tur bi rek yenn saa ma génn nag. li ma la wax noonu loolu dañoo war a nangu Baltazar moom Baltazar moom loolu ci mën a dégg. Didi li mu def noonu nit ñi ñu ñuy waa Sénégal ñu ciy coow mel ni Baltazar kuy door a Europe fii ci réew. li ko gën a garaaw li ko gën a garaaw yaa ngi léegi nag li nga xam ne nag mooy àtte bi su fekkente ni jullit la ñu koy àtte sérieux li mu ci wax dafa gaaw mooy dañ koy rey dañ koy rey boo amee jëkkër dem di njaalo wala nga am jabar dem di njaalo sérieux neen nan la nan li war sew nañ la raj gas kàmb jël ay xeer maanaam lépp loo xam ne jigéen ñi tamit dañ leen di reyaale waaw ñoom ñaar góor géeg jigéen ñooy góor bu jigéen ji am jëkkër waa bokkut ak nag góor gi nga xam jigéen bi ko tayul bi nag nga xamante ni def na ko malgré parce léegi léegi nag mooy mooy question bi kii indi waa xam nga l'islam dafa civilisé waaw l'islam du du considéré niw du considéré ni kii dañ koo liggéey liggéey bi jàpp ndax liggéey bu jàpp kenn ci ñun ñu la wóorul. dëgg la mbaa Modou yaa ngi may dégg. ok l'islam demul ci di dox ci loo xam ni par da koy def da ci dem aveuglement nii. Mm. l'islam lépp lu muy wax da ciy teg tànkam. dëgg la l'islam assuré wul ni. dañu laa liggéey ba jàpp la moo tax nga nangu. Mm-hmm. dafoo dina jàpp la am nga xel. ah oustaz. mais oustaz liggéey nga jàpp jigéen góor gi liggéey que jigéen ñu na bokk. waaw jigéen a ngi liggéey góor. ndax wéccet ba mu am. waaw te moom nabul sax ku góor moo morning ba lay dem. Ah, jaamu léegi naa la dimbali kaa ma dimbali la. Ah. xale bu jigéen bi nga woo. yóbbu ko ci benn kër. Ah. dugg moom jël kaas def ci doro jox ko mu naan ànd ak sagoom nga sëy ak moom yow la doo téeméer yar moom kenn du ko doo téeméer. voilà ah, loolu leer na. yaa ngi non di attention. loolu leer ko wax ni ko moom moo tay ñu liggéey yóbbu ko ci tamit tamit liggéey boobu laa la waaw du accuser nit parce que l'islam amul ko leer te l'islam du bokk ci mu xamul. maa dégg nga ma bu baax yàlla yaa ngi eh, gis lépp bi ngay dem ci merci léegi nag atte boobu atte boobu nag am na atte boobu liggéey am na attention attention atte boobu atte dina toll foo xam ni suñu borom rek moo ciy doy mais doomu aadama du ci doy moo yaa may dégg déggoo ma la atte dina am fu muy toll mm. wallaahu axalam rek la ciy génne parce que am na dimension boo xam ni mën nga bu dee liggéey la bu ñu ko def liggéey loo ko ba pare njaaloo ko kooku du ci am dara. mais yàlla ko xam du lu ñu mën a jugé. ñun dañuy tuuti ci jugé loolu. Oustaz léegi am na benn sew sew. dégg nga koy fàtte boo pare. Hmm. xam nga tey ki nga xamante dañ koo liggéey waxatuma kooku mais tey may ñaanal dem si yàlla kat ba nga xamante ne ca ginnaaw suñu kër gaawaan la xewe woon hmm. waa ji da ko dañ leen a tëddee ba pare mm-hmm. moo da xam ne may wax dañ koo tëddee xam nga kooku dorogé wuñ ko mm-hmm. liggéeyuñ ko mm-hmm. mais ay bandi ay ñaawteef ñoo ko tëddee fay ay mégo ci taatam yal na ko yàlla jéggal te jéggal ma sax ci kàddu gi ba pare moom mu dee ñoom ñu ngi dund te ñoo tëj nañ leen génne leen maanaam lu yomb daal léegi nag te kee dee na moom te ñoom ñu ngi dund ñooñu ñu leen charia di wax sa ñooñu liggéeyuñu waaw xam nga ñooñu dañ leen di atte atte ku rek parce ko maanaam dañoo dañoo dañ koo yàqate ko ba rey ko ñooñu islam taxaw na ci man qatala nafsan mutaamidan fa jazaahu jahannama ku rey moom te yaa ko tey sa kër mooy safara loolu moom amul ci gisaak waru ngeen rey ci kaw suuf bu dee doon réew mi doon réew dañuy atte bari na mbaam bi bu l'islam doon atte woo charia laa wax bu doon móolu l'islam jaasi charia mooy dox mm-hmm. mbaam bi góor ñu bari dootoo leen gis ñu bari waaye jigéen ñu bari tam dootoo leen gis parce que am na ñaawteef boo xam ni foo déggee ñu boo déggee ñu góor def ah, bu ko laa doomu di am moom asal xanaa yow la defal nànk rek yéen yéen a bëgg a tooñ ñeneen ci biti nañu ah, am rek dé non non kon plateau bi am rek lañu wax ah, kon plateau bi am technicien bi ne mu daal li lay conseillé jigéen ñi mu leer Modou nañu am jom jigéen ñi nañu am jom liñ lay war a rasul yi jigéen ñi am leen jom ngeen bàyyi ñàkk fayda bàyyi bëgg xaalis jigéen ñi bari muul li leen teg ba ñu def njaalo di jaay seen bopp dërëm bii dong la te dërëm day jeex fa mm-hmm. saale xaanitaatu xaafizaatu lil xaybi bi ma xafazallah jigéen day sell mm-hmm. jigéen day téye ku gis nga nii yaa ko moom denc ko mooy dëgg boo tax dëgg ci la de dama ni waaw maa ngi dégg baatu tukkil marqué Ndiaye bu yàqoo ma defar. mais nee na na ko tuddee jaay xam nga loolu. yaa ngi dégg loolu du yaru du yaru l'islam. d'accord. te fan yi maa ngi dégg mu doon tànn xale jigéen ñi ku nekk foofu mais mais am na ay mbabal la ñuy sol ay kilot ay kilot ubbi mbalakañ waaw parce que ñu bañ aana njaay fay man def naa jigéen daal wala yebbu diina zinatuhunna xoolal Moodu déggal lii rek wala yebbu diina zinatuhunna illa ma zahara minha déggal lool alxuraan la suratul ahzab yàlla nee na seen taar yi hmm. bu leen ko feeñal lu dul la ci seen borom feeñal gis nga guddi mi toog di di mii xar kanamam dong la ko sariya may ak tenkam bi hmm. waaye taaram a ngi feeñ am na seetaan koo xam ne yàkkamtuwul jommet am lu dul jommet daa am hmm. muy bëggee ci yow boo déplacé woo mu kontaan ah. boo reetaanee mu kontaan mu kontaan yaa ko may lu muy eh. na koo xam ne bambi nii fii waxul du kontaan. yàkkamtul daa mu def veste daa mu def mu cee xoolal nga cay sàcc loolu lépp lislaam ni ah ma naa la wax fi dina ah, plateau bi bu loolu mm-hmm. société lislaam da koy araamal dëgg la baa dégg nga ma moo yow moom dégg nga ma ma ne plateau bi bu loolu société lislaam da koy araamal ndax lislaam du ñu may ñu toogandoo comme nii mm-hmm. di seen bopp yi te fi ñu toog malakal malaak malaykatu rahmaan duñ fi teew ndax malaykatu rahmaan duñu teew mukk foo xam ne jigéen day boppam dañ koy seen ah, wala ñuy seen awraam périg la périg waaw ah, mu ngoog kon nag côté Balthazar moom ak question boobu nga ma laaj bu dee ah, d'accord waaw ñu naan bi fees deuxième question bi leer na nañu kay nañu